jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal maa ngi fi ak ki nga xamante ni mooy Père Bourkhane Père Bourkhane nuyu naa la. maa ngay fay Ousin. Euh, ñu ñëw ci làmb ji nga xamante ni moo amoon démb ci diggante Balla ak Bombardier naka nga jàngatee combat bi. onze bi kalimaati laay taamaati min sharri maa xalaq ginnaaw bi nu sant yàlla julli ci Balaay ak Seydi ñu ngi nuyu internet yëpp euh, di wax ni Sénégal yàlla na fi jàmm wàcc feebar bii di Covid Covid 19 yàlla génn ci àdduna bi yëpp. ba ñu mën a continuer def suñuy activité Ousin li nga wax euh, lu am solo la mais dañuy profité ci occasion bi pour féliciter Gaston Mbengue ndax ñi namoon làmb yëpp journée yi muy def dañ ciy màndi làmb daan naa wax ne euh, làmb su ci Gaston newul Aziz newu ci Ligue newu ci daanaka làmb day wéet ñu ciy profité aussi di di di féliciter Euh, le président Abdou Fall mi nga xam ni moom tamit bi ñëpp demee toog moom moo fi nekkoon di liggéey ak ak nit ñi kon vraiment dañuy ñaanal promoteur yëpp parce que sans les promoteurs le CNG ne travaille pas manager yi duñu liggéey mbër yi duñu liggéey kon ñaanal promoteurs yi mooy ñaanal suñu bopp lamb démb bi nag dafa wonewaat boppam tey làmb ji bu ma lee ne c'est à Balla Gaye Balla Gaye moom la nit ñi bëgg Balla Gaye moo tàmmal nit ñi loo xamante ni su bésam jotee nit ñëpp dañuy bàyyi seen soxla yëpp ak paas li muy cher cher kenn ku si nekk gis nga place yi nu mu euh, làmb ja mel keroog ñu di ko félicité euh, ñu koy encouragé parce que euh, Balla Gaye su fekkee ne dafa def palmarès bi mu def palmarès bu riche bi mu am titre yi nga xam ne am na ko. amatul dara lu muy lu muy lu muy wutati ci ci làmb bu dee titre roi des arènes moo sës te nekk na ko su fekkee ni palmarès la képp koo xam ni mbër la mu ñuy tudd ci Sénégal daanaka bëri na ak yow kon moom moo si gàcca ngaalaama du ñu wane ne rek dañu ni làmb mën a bëre du tax nga daan gën a baax stratégie mooy tax nga daan demb yàlla dogal na Bombardier indi indi benn stratégie boo xam ne dafa contrecarrer tous les avantages de de Balla Gaye mu développé ko wane ko ba gagné combat am moom it ñu koy félicité bas parce que nee naa ne képp ku bëgg a daan Bombardier di jàppanteeg moom doo ko daan lamb ji bu fekkoon dañuy jàpp ba pare doog a bëre kon Bombardier mooy nekk roi des arènes c'est sûr. kenn waaw su fekkoon ni balaa ñuy bëre dañuy jàppante ba pare kon mooy nekk roi des arènes. mais démb dañoo gis. Mhm. ñoom ñaar bi chute nga nag euh, foofu toujours arbitre bi moom mooy nekk responsable su fekkee ne dafa ne man dama soufflé woon ba pare kon foofu moom rek la engagé ndax CNG da koy da ko am lu mu ko bàyyil moom su ko neexee mu homologué su ko neexee du ko homologué bu xasee sifflé rek ko chute mënatu am waaye dañ wax ni bu fekkee ne action dañ ko démarré ci biir mu jeexee ci biti dañ koy homologué. léegi nag mi ngi des ci prestation wu arbitre bi appréciation du moins bu arbitre. loolu moo tax suñu dellu suwaatee kenn arbitre bi kenn mun ko wax dara moom lay moom moo naan sifflé woon na ñëpp xam ne sifflé na wala sifflé wu ma Bombardier li ko yoon mayoon foofu mooy même su fekkee ni dañoo bëree ba pare parce que moom sàqi mënul mënul nekk sàqi dañ koy tere li mënoon nekk mooy mu bëre te noonu la mujjee bëree ba usé bi sama yoon nekkatu man daanoon naa ba pare damay defi recours kon léegi day gérer làmbam comme que li moo ëpp ay avertissement da koy gérer ba temps bi jeex mu gagné su fekkoon ne tamit gañewul day dem bind bind recours moo tax foofu ñun du ñu mën a wax gum dara lu dul ñu visualiser waat encore xool est-ce que arbitre bi sifflé woon na su fekkee ne dëkk dafa sifflé woon kon loolu mu wax dëgg la su fekkee ni sifflé wul nag foofu moom Bombardier mooy am raison kon Bombardier daan na ko ci chute bu jëkk ba. ñu gis ne bi bom Balla Gaye amee quatre avertissement. Hmm. am na fenn benn instant bu ko Bombardier dawee songu. ndaw hmm. wërki la ba génn. Hmm. ñu ci bëri doon doon réclamer ne dafa waroon jël cinquième avertissement. mais arbitre bi waat leen. foofu ba tey nee naa la appréciation arbitre ba léegi da ñoom dañuy wax ne su fekkee dangeen xeex ba génn mun na ko tolérer bu dee da ngeen xeex ba génn mais bu fekkee da ngay dañ lay dàq ngay arrière ba génn. foofu moom mun na bañ a tolérer mais dafa am foo xam ne toujours arbitre dañ ko may benn cër comme c'est le maître du terrain des fois dañuy koy nangul dogalam waaye su fe euh, am na ñoo xam ne bëri nañ fi combat yu mel noonu génn ñu di avertir leen kon ci foofu la waroon am cinquième avertissement ñu arrêté làmb ji mais nag ñun tamit comme ñoom ñun ñoo ne l'arbitre et le du terrain moom mu xool ne dañoo xeex ba génn mu indiwaat leen foofu aussi dañ koy bàyyi ak moom ba percussion bu loolu weesoo. Mhm. Balla Gaye Bombardier ñi ne dina am ñi du am en tant que manager Balla Gaye Bombardier da contra signé contrat Bombardier balagay Gaye. Euh, Balla Gaye Boy Niang. Balla Gaye Boy Niang. voilà Balla Gaye man eh, waxoon naa ko. xaaral ma balaa ñu ñëw ci Balla Gaye Boy Niang. dama ñëw ci làmb ji ba noppi. waa parce que làmb ji jeexagul. waaw Balla Gaye Bo Balla Gaye ñu gis ne Balla Gaye ni mu doon bëree démb ñu ci bëri xaamewuñu ko ba ci amateur yi ñu ci bëri dañoo gedd yeggaliwuñ làmb ji est-ce que Balla mi ñu doon gis ak Balla Gaye mi ñu xamoon moom lañ gis démb ca làmb ji. waaw xam nga man ak ñoom ñëpp ñoo bokk lu ñu gis. li daan gis si Balla Gaye mooy attaquant la. Mm-hmm. su arbitre bi sifflé dina def round d'observation au moins trente secondes maximum une minute. Mm-hmm. su fekkee defoo dara mu tibb suuf avancé. cette fois-ci gisuñu ko xëy na comme li ma waxoon rek làmb day toll foo xam ne du mën a bëre mooy tax nga daan gën a baax stratégie mooy tax nga daan man maa ngi leen di expliquer si combat booy Niang ak. Tafatine Tafatine dafa benn indi benn stratégie boo xam ne xaw na perturbé booy Niang la fait que mu tàllal loxoom di avancer si kawam kon stratégie boobu la indi. ba mën a gagné Boy Niang xëy na peut-être bu doon dafa léewtoo ànd ak moom wala bu doon bi Boy Niang jàppanteeg moom mu doon def sax ay geste de lutte mais jour boobu moom dafa défendre boppam ba ne man tey jii duma daanu te loolu moo ko may tey victoire bi nga xam ne moom la am. ëllëgu Balla Gaye. Euh, Balla Gaye ëllëgam nee naa leen du ëllëg boo xam ne sax ñu jar nañu ci euh, focaliser wu. Balla Gaye lépp loo xam ni mbër am na ko yàlla may na ko ko am na titre roi des arènes. am na palmarès bu riche parce que képp kuñ fi tudd bëri na ak yow kon kooku li Aziz bëgg tey ci moom nekkul ay ay ay victoire ak ay ay ay ay ay titre roi des arènes li mu bëgg ci moom mu nekk un citoyen d'honneur koo xam ne nit ku riche say doon koo xam ne day def ay investissement koo xam ne day jëriñ réewam foofu la ñuy xool Balla Gaye mais nekkatul di ko wàññal ay yaa daan diw ak ay diwala daan ay ay roi des arènes non no non non soo gisee ñu dajale lu tol noonu ci ay combat nga xam ne boo ko calculé woon tey ji xaalis bu bari la un peu moins d'un milliard yaa ngi ñu war la ko dajaleel parce que am na leneen lu xool ci moom lu dul ay victoire rek ay ay ay titre roi des arènes kon moom am ëllëgam tabax nañ ko ba pare waaw tabax nañ ko ba pare léegi kay eh, ay investissement loolu la ñuy xool ci Balla Gaye li mu waroon a def yëpp defal na ko waa Guédiawaye façon victoire bu ne indi na ko Ibrahima Mina Sène booy ñang booy ñang damay juum. waaw booy ñang booy ñang dina am wala du am. Euh, dañ ne woon. Mm. bii booy ñang bëree ba nopp mm. ku ci mel ni Aziz Ndiaye. dafa ne woon ku daanu da ngay xaar ngeen daanu daanuwaat. mu ne du ngeen bëre ak yéen il faut ngeen dem ji ba prouver daanuñu daanuwaat de ah seen diggante ak la rek daanu leen non boobu loolu xewagul waaw moom laa wax ci ñaari defet ngeen jógee boobu ma ne combat boobu boobu loolu xewagul laa wax man maa maa ko waxee noonu ci ñaari defet ngeen jógee waaw mu ne da ngeen di dem bëre ji ba prouver ngeen doog a ñëw bëre ak moom moom mu bëre ni mu bëree ñu ci bëri nee nañu fi mu toll ni moom combat bi ñor na ndax da ngeen a daanu mu daanu naka nga gisee ba waaw moom dafa am ay contrat xam nga Balla Gaye Balla Gaye mënutu la bëre kenn kudul programme yi nga xam ni moom la gason Mbengue étalé pour moom xam nga moom ñëwul tey dem di jëli beneen combat budul bu Gaston ñun tamit boo waxee ne nañ dem wuutiwaat beneen combat amuñu droit bëreel keneen. ku waaw yéen bi ngeen bëree ba noppi ñoom seen yoon newu ci mais dañoo génn wax ak yéen mais ñoom bi ñu bëree ba noppi naka ngeen ko gisee. dégguloo li ma la wax dama ni ñoom dañ doon wax noonu rek. Gaston moom moo moom la ñu contra contrat. ñun signé ñu ak Aziz mi doon wax bu doon Gaston moo waxoon kon loolu mun nañ cee wax. mais ñun promoteur bi moom signé na suñu contrat yëkkati na avance am jox ñu ne naa leen jox date kon kooku ñun amatuñu dara lañ fay wax. selon yow mi nga xamante ne yaay ménage Boy Niang. waaw Boy Niang waaw. ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom Bada Dione waxuñu. waaw Aziz Ndiaye di signé ak Bombardier génn taxaw di leen sànni xeer. selon yéen moom mu bëree ba nopp te mu bokk ci seen adversaire. waaw léegi nag ngeen gisee moom ni mu bëree est-ce moom dama ko waxoon ma ne ko. yow bu la daanee nag mënuma man kenn du ma daan. léegi daan nañ ko bon léegi kay question boobu moom moom ngeen koy posé waat. Mhm. waaye man la ma ko naa ko ba waxoon dafa am. waaw léegi moom laa bëgg a xam léegi yow ne fu ngeen taxawee bo léegi. ñun fu ñuy taxaw du xaar suñu promoteur rek mu wax ñu. suñu waxee date ñu ñu ñu dem suñu yoon. mais dama déggoon kii di père de Gaulle. mu ne hmm. booy mu ne Balla moom du ma ci wax. waaw xam na xam naa doo ci wax. mais dama ah. déggoon mu ne. Euh, Balla Gaye bokk na ci mbër yi gën a neex a daan. Hmm. kon loolu moom nee naa la man du ma kooku moom mi ko wax na ko waxaatal boppam man dégg euh, Balla Gaye. mais li Balla Gaye loolu dal na mbër mu ne Modou Lo ñëw na fi bëri bay bëgg a dee Bombardier daan Boy Niang ñëpp xamoon nañu dafa offensif yaa ngi dégg te gis nga li ko dal contre contre euh, Tapha Tine Lac de moom moo attaqué lépp lu ñu fay def moo ko fa def mais loolu moo ko dal ci contre Tapha Tine côté stratégie la léegi léegi Balla Gaye tamit loolu moo ko dalaat ci Bombardier suba aussi mën na def leneen loo xam ne lu jaaxalaat nit ñi.